bi ma benn ndox lañ mën a wax ne moo ko gën muy ban muy zam sam lu ko wute yeneen ndox yëpp ñu ngi topp ci ginnaam kon rang ba moom mooy dës ginnaaw zam-zam ba mu nekkee ca kanam moom moo nekk dës ñeneen ña nekk la nga xam ne moom lañ ne ak kan boo fi xalañ koo xam <laughs> yow Sall daa ma sutura. Hmm? daa ma sutura. Ah, damaa xamul lu muy mel ni luy bëgg a départ. ak yow bëgg a daan. ak yow mi may daan woon nag ñu ne way way malaise la am. te fekk du malaise mu kii ba nag naan way way c'est le malaise on va ma jóg RFI naan way way un journaliste de Walfadjri a fi tombé. sentir le kii. ma jigéen c'est saa amul sutura. mais saa bala ñuy avancer ñu fàttali jëmale ci Promobile. Mhm. nga xamante ni nag euh, seen service client numéro bi boo leen soxlaa da ngeen di def 16 75. Mhm. service client bi 16 75 bu dee ci WhatsApp aussi nga bëgg jaare mën nga def 75 525 mais tamit ñu fàttali ni tey la campagne de recrutement bi nga euh, xamante ni Promobile piste soixantaine ma ngi koy amal. képp koo xamante ni képp tey lay commencé campagne de recrutement am numéro yii ngay jàll muy 75 525 10 07 wala 75 525 01 34 wala 75 630 15 89 mi ngi noonu bétti xam nga li ci neex mooy jamono ji nga xamante ni bi nit ñaa ngi dàq mm. ak a wàññi promo bi moom ñu ngi tàllal loxo di recruter kon boog gone gi toog ci kiyam fi mu toll nii bu déglee kii na maire jàppal numéro bi bu <laughs> Ablaye wala Modou wala daaw da nga ko wuti liggéey wuti liggéey jógal waaw <laughs> uh-huh. ñeneen lu liggéey ci réew mi dañ koy yóbbu seen réew waaw moom nag lu mu liggéey ci réew mi def ko da mm-hmm. koy delluwaat ci réew mi waaw dërëm bi génnul gaal en tout cas en tout cas am na solo euh, mi aussi bu fekkee da ci soxla ay renseignement mën nga woote ci 75 525 00 29 mi ngi noonu ñoom daal euh, accessible nañu daal ayca mi ngi noonu elle nous a rejoint sur ce plateau moom Souka Mbaye madame Samba chéri Boubacar namoon nañu la naka sa week-end euh, ça a été machallah ça va bien waaw nuyu mbokku téléspectateurs yi nga xam ne rek euh, ñu ngi saxoo di stan télévision mag bile mu di Walfadjri leeru jamono la voix des sans voix euh, premier numéro de la semaine ci seen émission bu mag bile mu di neppaat musical ci biir talk show may sargal képp ki nga xam ne rek euh, ñu ngi ñuy bàyyi xel nag béti di jaale ñi nga benn dëkk ñaari gaar mm-hmm, mm-hmm. sam papa nag laay jaale ak sama ñoom bàjjen ki nga xam ne rek moo di sam papa Cuuli Mbaay gri da ko daaw jaañ Mbaay maa jigéen ménge te te yéen koy ñaanal sama papa jooju yàlla na ko yàlla xare mhm. àjjana ci barke Seydina Muhammad yàlla bu mu giseel kenn dara ci bi bàmmel ndax mhm. papa ju baax la papa ju bëgg ay njabootam papa joo xam ne dafa jàpp doomu jàmbur doomu frère ami comme seeni doom mhm. donc kon dañ koy ñaanal ko nga xam ne rek moo di sama papa cuuli yàlla na ko yàlla xare àjjana amin amin ayca mu doon ñu ngi jàll waa mhm. sunu papa ñaanal yàlla na sarax bi yàgg ci amin yaa rabbi amin yaa rabbi ñu leen di jàlle di ko jàlle amin yaa yàlla xare aljana daan di wax la fii mm, sama euh, papa cuuli mm-hmm. daf baax daf baax ni sax koy ñaanal yàlla na aljana di ko yàlla xare aljana ci kanam tuuti ñu ñëwaat ci kanam tuuti dinañ ñëw ci Nepad mais en attendant dañuy ànd ak ki nga xam ne moo di ma jigéen Diop ci top 5 de séries télé tey loo indi Ah, ajëratu euh, mhm. tey nag ñëpp xam nañ ne kenn du ne top five te du tuddu théâtre mhm. euh, ñu doon euh, célébrer journée mondiale du théâtre le vingt 27 samedi bi ñu génn mhm. mu nekkoon journée boo xamante ne nii képp koo xamante ne nii rek artiste nga nekk si milieu bi doon nañ ko ko sargale waaye nag fii Sénégal gis nañ ni benn activité amu fi peut-être nag contexte bi moom moo waral boobu le mbir waaye nag jotoon nañu sekk waxtaan waxtaan ak ñi nga xamante ne ni ñoo di ñenn ñi nga xamante ni gën nañ leen a ràññee vraiment ci scène bi. Mhm. ki nga xamante ne ni moo di Ndiak mbay demoon na seeti leen dañuy daal di dem xool ko daal di dikkaat. Sénégal di màggal bésu théâtre kon ni ko àdduna yépp di defee ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars bu ne lu nu mel doon ab porox ndol ngir ñu saytuwaale ana ban taxawaay la théâtre am ci sunu réew. Euh, théâtre euh, dafa tumuranke euh, nguur gi dañ leen jàppalewul askan wi jàppalewuñ leen ndax théâtre euh, ñi ngi koy defee ci ay place yu mel nii euh, centre culturel yi di ko defee ci école yi di ko defee ci béréb yi nit ñi di daje di ko defee itam bu fekkente ci anam yu kawe la fu mel ni Sorano fu mel ni Grand Théâtre waaye boo xool béréb yooyu valoriser fi fa théâtre eh bien comme niñ ko war a defee théâtre bi ci boppam moom di ci nekk dafa xaw a doy waar ndax li mu laaj doo ci gis kenn ko xam ne nii bëgg na ñëw dugal ci xaalisam mbaa ay weccitam ñaari acteurs yi ñu dajeel muy Lamine Ndiaye ak moo di Fall di ñu xamal ne série yi mën nañu suul benn yoon théâtre njëlbeenu acteur eh bien euh, théâtre la war a doon boo jaaree ci théâtre jóge fa doon acteur eh da gën a mën a mën sa liggéey rek ba tax na théâtre war na mën a dund série dund ci wetam. théâtre fa mu nekkoon ma fa. ñàkk koo bañ a def dégg nga ñàkk koo def sax dafa nekk loo xam ne nii euh, lu bare ngi ñuy raw. ñoom sax ñu ñuy xamal ni. ñoo ngi teg ay jéego ngir gën a gëddal théâtre ci réew mi. pour revaloriser théâtre bi mooy ñun ñu ngi def ay initiative ñu ngi créer ay spectacle eh, ñu ngi koy def xëy na jamono bii sax jamono Covid bi moom moo tax mu xaw a freiné wu. ñun li ñuy def théâtre bi jikko yee tax ñu du ko def. donc ngir yàlla nañ jëm ci jikko yi am na leneen lu ñuy wax que euh, kidnappé nañ pistolet yi pan pan pan pan fan lañ nekk comme ku nekk Far West nous ne sommes pas des cowboys à plus forte raison des Yankees s'il vous plaît soyons sénégalais restons au Sénégal nous avons beaucoup de choses yoo xam ne nii on peut vraiment les travailler ça a beaucoup plus de valeur ma sénégalité dama koy dund ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru mars bu ne àdduna wëngal këpp di màggal bés bi ñu jagleel théâtre tax na ñi ciy yëngu ak ñi koy bégee porox ndol nañ ci bile bés ngir fàttali askan wi place bi théâtre war a am ci réew mi voilà ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom Jack mbay ak Pape Gora ñoom ñoo demoon jànke jànke Mbaye ak Pape Gora ñu ngi leen di gërëm di leen sant gis nga ko ajaratu comme ni mu ko waxee rek ah, kii c'est ça euh, Lamine Ndiaye ndeysaan wax na ba jooy parce que nee na théâtre démb ak série yi nga xam dem na sax ba théâtre léegi gisatoo ko sax lu bëri parce que euh, ñi nga xamante ne ni ñoo di maison de production yi dañoo ñëw rek daal di jël espace bi yëpp daal di koy accaparer mm-hmm. mu nekk ay mbir yoo xamante ne ni ñoom nag naqarlu nañ ko parce que ni ñuy jouer léegi sax ak nanga nañ daan jouer bu njëkk bokkatul nee na dem na ba léegi li ngay sentir lan la mbir yëpp dafa mel ni dañ dañu jël dañ ko occidentaliser ba gisatoo daraay euh, li nga xamante ne ni moo di suñuy réalité wala boo koy gis sax bëriwul amaana wàlliyaan bi voilà moom mm-hmm. moom moo si ëpp oma mu nekk mbir yoo xamante ne ni ku ko dégg xam ni kii am na lu ko nakari mm-hmm. mm-hmm. ah. yi Mm-hmm. Habib Diop yàlla na ko yàlla may weer. amiin amiin waaw nee nag seetaan nañ ko. Mm-hmm. waaye yàlla na ko yàlla taxawu. Mm-hmm. ba ca Rufisque ga mu dëkk. mais ku yàlla téye rek li coon doon wax doo fa xasalu waaw kon yàlla na ko yàlla téyel boppam rek. mais comme li ñoom Lamine wax fii théâtre toll ak ñoom nañ ko doon dundee ak ni mu mel tey léegi dafa commercial li ñu wax ci même li waa ji doon wax sànq ci rab bi maanaam léegi danoo jiital commercial. monde bi moo capitaliste utum xaalis gi léegi nag boo ko toppee dangay dem ba yow doo toppati lii moo jaadu mais dangay ngay topp nan ngay def ba am kon ñoom Lamine c'est bien ñu joxe ay conseils c'est bien ñu gunde gunge lii mais il faut ñu comprendre tamit ah fan tolloon ak fi jamono toll aussi tamit wute na léegi nag euh, li am solo rek mooy defin wi maanaam lan la ñuy wane parce que man li may critiquer ci théâtre tay ah ak lii xew xaw ma théâtre xaw ma téléfilm xam lu mu que ñoom ku ne am na noo ko tuddee parce que am na sur scène ak yeneen ak yeneen dañuy nduroo maanaam bii daw ci télé bi ak télé bi maanaam dañuy nduroo maanaam dañuy dem ba yow doo ràññeeti ban la ak dan la bëgguma tudd ñaari maison de production yi eh, kenn ki daan na démarqué wu mais léegi li ñuy joué day day dem ba nduróog lu xaw a méngoo booy xool event pro ngay xool mborodi ak ñeneen ak ñeneen da da ngay mel da koy xaw a sentir ngay gis les même acteurs di nekk ci ñaari téléfilm biir di daw télé bee bii di daw télé bee maanaam yow da ngay dem ba di réer te des fois aussi c'est bien lu may wax ci commercial ci ut bi ak am bi rek mais aussi ñu rafetal ko jekkal ko comme li kii doon wax mu bañ a doon rek li may fal di wax Kleenex loo xam da nga koy teg tey après AGT nga dem un après mënatoo ko tegaat nga wala nga dem un an après mënatoo ko seetaanaat parce que bi ñu koy joué ñoom danoo amul objectif mooy lan ci le plan commercial mooy rek dañuy xàcc dóor mu dal tey ñu am ci li ñuy am demart mais aussi ten construire dans la durée loo xam ne dafiy ne ba bu ëllëgee dans vingt ans comme ñi nga mën a tegaatee Lamine Ndiaye tey jii wala nga teg keneen ak keneen di ko rafetlu mais aussi le monde évolue aussi tey euh, comme ni niñ ko waxee rek tout à l'heure man sérieusement bu euh, bañ naa ko ba sax duma seetaan théâtre tey sérieusement hmm. xaw ma sax série fu ñuy def ak yu mu dul daw hmm. mais euh, xam nga nit bu jooyee am na lu nekk ci biir xolam ndax dafa dafa am loo xam ne sentir na ko ñoom Lamine Ndiaye day nit ñoo xam ne dañ fay joué loo xam ne kenn dootu ko joué ci euh, Lamine Ndiaye joué na ci li nga xam ne rek moom moo di xànju am na boo xam ne moom ak euh, bi nga xam ne mooy bi na ne Aïda Souka Aïda Souka boobu moom moo ci tëgg mën na joué mën na théâtre mais kenn joxu leen li nga xam ne rek mooy li nu yàlla loolu théâtre bu démb ak tey bu démb da daan yeete ñun xale bi nga xam ne danga daan seetaan yaaxaanju yaaxaanju am na loo xam ni nit moo ko joué te loolu nit da ko dangay ñaan yàlla heure boo amee jëkkër dangay ñaan yàlla yàlla nga def mu fekk la loolu ci yow loolu muy yeete am na loo xam ne dalay yee mais bi bi euh, théâtre euh, tey yi mm-hmm. dañuy wane seen cas mooy li wane ak luxe waa këy mm. te bee amul woon mm. xoola bu Malick Ndiaye faracal bi mooy Aïda Souka li ñu doon def mooy ay nit yoo xam ni mm. dañuy ñëw nekk genre kii nii di nekk nii boo nekkee di dagg dagg mooy bi Malick Ndiaye daggee loxo kii bi kumba am day bi loolu lépp ci benn kii benn kii lañ ko joué par rapport ak nii luxe la ñuy wane piscine dugg li sañsa ci li def ci ci li mm, donc man wax dëgg yàlla musique kii wu démb moo ma gën a buut du ma ko sax seetaan far d'accord ça même euh, kii yi nga doon gis sax mooy comme sur scène nit yi ñëw toog ñoom ñu nekk si benn pièce di jouer di bégloo nit ñi loolu sax farataaluñu di ko gis léegi lu bëri waaw macha allah xam nga souvent <coughs> li muy wax noonu théâtre sur scène lay wax ñoom Mari Ndiaye boobu ñuy def mhm. noonu ay desuka mhm. bi kooku théâtre sur scène la mhm. euh, moom la ñu présenté kii loolu mooy li nga xamante ni moom la ñuy wax théâtre luy nag ay téléfilm ngay <coughs> yeneen yi ay téléfilm la Euh, grand Lamine ñu ngi koy nuyu. bon mm. vraiment moom ci journée bi moom marqué na ko parce que dem na sax ba jooy mi ngi théâtre bi biir mm. parce que jooy boobu jooy artistique la grand Lamine xam na ne xam naa ko bu baax na naa de jooy bi mu jooy pour pénétrer xolu nit ñi waaye ay jooyu théâtre la kon am na nit ñi <laughs> ñu ngi koy nuyu ci li nga xamante moo def bon vraiment euh, ñii ay icône lañ quoi ñoo xamante ni bi euh, ñoom théâtre dafa dee ci ñoom quoi ñu nekk ñoo xamante ni bi tamit def nañ fi loo xamante ni bi lu am solo la xam nga tey mm. eh, métier moo gis rek day gën a évoluer xaalis yi di gën a bari parce que tey <laughs> buñ ñëwoon ñi nga xamante ni bi tey eh, Baba Touré lu ne def na ko ci football mën na lu ne mais lan la ci am dara tey ñi nga xamante ni bii ñëpp am nañ ci dara mm. donc nga gis ni Eh, ñoo xam ne daal te yamuñu ko ci we mhm. donc nga gis ni eh, loolu mooy li nga xam ne bi mooy àddina léegi nag bu ñëwee nag ci cadre théâtre mhm. maanaam Lamine dafa wax wax bu am solo maanaam nañu sénégaliser li sunuy yëfi bopp parce que bu ñu demee ba américains yi di jouer ay film cowboy mhm. dañ lay wan ne loolu dafa amoon ca seeni jamono maanaam bu ñu wax seeni taarix dafa faa amoon ay duel ay kiiw ak affaire yooyu yëpp Mhm. mais yow Sénégal fii kenn mosu fee gis ci taarix xanaa doonante yat moo fi amoon. Mhm. ay jamono parce que buur kii yu njëkk yi nee la euh, kii nu mu tëddi Lat Sukaabe Ngoone Jeey moo njëkk am fetal ci réew mi moo fi njëkk yor fetal. Mhm. ki ko ko jaay benn tubaab la bu ñuy wax xaw ma André xaw ma lan jamono jooju bi mu ko yoree moo mën ci dëkk bi moo fi mën ku mu xeexal gañe la parce que moo am fetal ñee yat lañ yoroon jamono yi mbol del la bu ko defee mooy sox kii ba xuc xuc Star Star lu muy ree xanaa dama xam ne rek comprendre que léegi yow booy joué tamit même fetal yi nga xamante ne bi doona fetal yi nga xamante ne bi tey li ñoom Lamine wax loolu dama ci ànd que ni théâtre lan mooy bit bi bu njëkk ba ñoom dañ koy def pour pour yeete yee nit ñi mais léegi ñii dañ koy def pour yàq nit ñi xam nga c'est que ki koy def pour yàq ak ki koy def ku ko doon def pour yee nit ñi mm-hmm. bokkuñu objectif mm-hmm. mais léegi lan moo tax nag léegi théâtre léegi dox dox goo xam dox dox gu extraordinaire c'est parce que nit ñi tamit ñoo koy consommer mais ñoom loolu tey yaa ngi ne doo ko seetaan mm-hmm. te boo ngeen toogoon fee wéet série boo ko wax su kaa nett la fee. waaw bu nekk waaw waaw. te nee na du ko seetaan. non non non du ma seetaan lii mooy tampale. dañuy nekk ci télé yi non non du ma seetaan fii non man novel wax dëgg yàlla. filmu novelas moom loolu ma ma jox la ko. gis nga théâtre yi boo ko ci laaj mu ne la ah kooku di mu ne ma sànq la bi liggéey bi naan kii moo si kii mi ngi mi ngi sa pourtant pourtant yaa ngi wax léegi je suis désolé tappale yooyu non non non man du war a bàyyi ci plateau bi tappalekat bu mag nga man mi yaa def tappale ñëpp parce que mënoo toog ci man sama réew may seetaan film non lay consommé hmm. connexion bu mu am allah ko man yaa li ma ci ma ci a wax daal mooy li ma ci mën a wax mooy. yow du ma la fuuyu eh, ba ba ba ay daara ko ca jamonoy tey ak naan ko doon yaa xam ni moom dama ko daan seetaan mënuñu blâmer ñi nga xamante ni ñooy xam nga lu tax. parce que consommateur yi loolu lañ bëgg boo fi tegee leneen loo xamante ni euh, lu ñu doon def démb ak bërki démb la mais mais mais mais nattukaay bi boo fa demee doo doo doo am dara loolu rek la dara gan ñoom dañu xam li sénégalais yi bëgg ak li ñu gëm léegi ñu fekk sénégalais yi ligsi lañ bëgg xale yu rafet mais loolu la xale yi ñaaw dugg fii tourné fi série kenn du la seetaan loolu lañu bëgg c'est yaa ngi dégg booy yi ñoom Ablaye ñii di seetaan théâtre laay nga ne laay day ñëw géey nga def na ko doxal idole bi. waaw dëgg la moom bu ñëwee machine ba moom loolu lay njëkk xool dëgg la. Ah, xale yi la xool yow léegi nga dem naan bon dangay triste indi xale yi ña bi lay dañ naan. dara dara neexu ci xooluñ nit ñi la ñuy xool. mais ça ça pour te dire que ñun ci à animation bi noonu la. Ah. mais tey jii dafa am ñoo xamante nii xam ah. naa sama dañ naan animation classique la ñuy def. Ah. mais tey jii boo ngéwélee wu. yuuxu woo toppoo ci way bi. ñoom bi fi la ñuy nekk ñoom bi fi nekk c'est dans tous les secteurs. noon la demee gis la la la kii fi mu toll nii tey mi ngi nii. xoolal léegi gis nga animation bi gis nga bubs bu mu bëggee continuer di nekk ba tey mais léegi mi ngi fecc. Mm. bubs daawut fecc. léegi il faut mu ngi kii boole ci ay. pàkkat yëpp parce que bu ko defut léegi day adopté wu ci mbir moom yaa ngi dégg léegi bu ngeen nekkee naan oui oui vous êtes en train d'écouter votre kii dañ lay zappé leen lay lay laaw xoolal kii nu booy bi eh, booy bi ci dëgg bi melo melo mais gars mi ngi toj. Pape Melo c'est parce que lu tax la mi ngi naan ci digg bi lii ci digg bi laaj. il faut loolu am. waaw mais c'est parce que bon. déedéet journaliste yee dugg si woon na leer indi ah. waaw si woon. mu wax waaw mu daal di koy wax affaire bi daal di dox ci côté bi. mais dafa neex ni mu ko defee mais affaire bi dox. waaw waaw waaw loolu moom neex na vraiment donc loolu ci digg boobu. waaw neex na boo fi nekkee nag kii. su gaa mii animé na 25 ans. vingt cinq ans de carrière ci Bécaye rajo Bécaye. saa loo xama vingt cinq ans ñaari nit ma sa ñaan dédicace Bécaye dafa ne ko day ubbi téléphone kenn ki bàjjanam la te moo ko jox pour mu woo. <laughs> Eh, ma jigéen tëjal saa. <laughs> Euh, tey léegi théâtre tey lañ si lañ lañu gën a bëgg moom la ñuy gën di suivre te te te koo si wax ñoom seen jëmmi bopp boo waxee mi ngi wax affaire yeete beeg yooyu mais à chaque fois soo waxee ñu ne la jubluwuñ ci pour wan mm. yàq nit yi mais fin bi dañuy wane ne jàngale la kon donc loolu déjà rek dafay <laughs> daal di daa <laughs> daal di yaa wax temps bi yëpp daal di yëpp lu si mën di am rek kii mi koy wax léegi bàyyi ili ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom may ko wér wérle te ñu xoolaat leen baax a baax parce que ñoom ñoo fi nekkoon démb di leen bégal euh, di la jox dig daje rek suba ak jàmm incha allah. d'accord incha allah sunu papa jooju Baye lii moom it yal na yàlla gën ko may wér yàlla yàggal taxawaay gi moo ku mu bokkal milieu bi ak ñoom ñëpp ngeen jox ñu tampon ne pas musical ay ci sukaa tey nag am nga say gan